danger yi nga xam ne moom moo nekkee tabaa tey nag ñu bëggoon rek tàmbali ak moom di ko laaj euh, li nga xam ni moom moo nekk ci ki nga xam ni moom mooy tux dëkk ak koo xam ni du tox buñ si paree xool listam la mooy position ci tabagisme kon sëriñ Adama Laye ñu ngi fas yéene jekk li suñu waxtaan ak yow mm-hmm. di dugg si waxtaan bi sant bu baax ci teew bi nga fi teew tey macha allah di fas yéene joxaat la kàddu gi mm-hmm. pour dugg ci li nga xam ni moom mooy mottali. Mhm. lañ tàmbali woon ci wàllu islam ak taba. Mhm. tey nag ñu bëggoon xool ak yow rek. Mhm. maanaam euh, kiy tox. dëkk ak koo xam ne du tox. naka lañ ko mën a misaale. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulilahi alladi xalaqa alxalqa wa jacala minhum rusulan wastafa min arrusuli muhammadan wa jacalahu akrama arrusuli wa xayra alalamin wa jacala ummatahu akrama alumam sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman Bachir ñu ngi lay nuyu di ziar kër gi di am mbégte siwaat ci jataay bi di ñaan yàlla yàlla nañ ko commencé ci bismillahi rahmaani rahim te jëkk ci alhamdulilahi rabbil alamin yaakaar naa waxtaanoon nañ ci histoire cigarette 12 octobre 1492 Christophe Colomb bi mu jógee dem seeti Isabel de Castilla ñu waxtaan ci danger cigarette tey ñu fa yéene waxtaan ci comme noonu nga ko xame ci kuy tux dëkk koo xam ne kii tuxul danger yi ci nekk. Bachir li ñu waxtaanoon ci bii passé muy jafe-jafe yi nga xam ne cigarette dina ko jox tuxkat man bëgguma nit sukkandiku fa bàyyi cigarette ndax danger yi ci nekk en tant que jullit dama bëgg buy bàyyi cigarette. naka bayyi parce que yalla dafa aramal cigarette mu bayyi ka bu boba jaamu yalla lay doon mais bu fekke daf ka bayyi ndax dafa tit du doon jaamu yalla te ab julit dafa war di yok ci jaamu am bes bu yalla sak sunu borom mo wax ne wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah amul ben bakken buy genn aduna luddul yalla mo joxe ndigal manam ku de ku ne yalla mo la ray fofu nak amana am ñu fay duggu daa di ne xanaa kon cigarette reyul yàlla mooy rey xam mën naa nekk waaye nag wolof dafay wax ne fegu moo gën di faju te docteur yi dañu dañu gëstu gëstu gu xereñ gu matale ci cigarette ñu gis ne comme ni nga ko xamee yow nit mënul yokk ci dundam walla mu wàññi ci loolu ñun ñëpp xam nañ ko waaye nag docteur yi ginnaaw bi ñu gëstoo ba pare dañu gis ne cigarette tuxkat man na yok man na wañi ci atam ñaar fukki at wala fukki at ak juroom ci tukh bi muy tukh manam tukh xaru la go xamne ne du xaru joni joni daf lay ray ndank ndank motax amna ben docteur bu ñuy wax ak docteur ratib ad nablusi dafa wax ne bo jëlone ay cigarette nga def ko ci kaasu ndox nga tejj ko fananal ko ba asaman set boko nané sur place ngay dé parce que day fekk poson yep dajé nañ man bima ma espagne di ci gëstu ma ngi tollu won ci 4000 poson yi nga xamantene ci garab gi lay joggé ak yi nga xamné ne ñoko ci dolli mais bima ñëwé fi waxtaan ak docteur Kassé dana ma ëpp na loolu mu ngi ci 7000 ci nonu ma dika gërëm bu baax mom docteur Kassé dika ñaanal yalla ndax wax dëgg yalla xex bi ci torop te dañ ko ci waroon jàppale surtout niti diine yi nag kilifa diine yi waroon nañ ko ci jàppale bu baax ndax dafa doon loo xam ne lislaam moo ko araamal Bachir ak tasxiinu salbi muy li nga xam ne mooy tux dëkk ak ku tuxul at bu yàlla sàkk six cent mille personnes dinañu dee ñoo xamante ne tuxuñu tuxaalewuñu te cigarette moo leen di moo leen di rey te tuxuñu tuxaalewuñu لولو بشير بو فكي دو توني لان موي توني تي توني تي الاسلام دا فا حرام يالا دا فا تي وخ آية بو قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون البغي كلمة بغي موي توين توكات بشير يامول تي توين بوبام مي داي توين نيكا وور مانام بو فكيه كوي جانغال لا نيامو نيكال تي ايكول بي بو فكيه ايزين لا ني موي ليغيياندول تي ايزين بي تي يالا واخ تي لاي جو ييمي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ñi nga xamante ne dañuy tooñ moo xam jullit yu góor yi la wala jullit yu jigéen yi te jullit ñooñu nga xamante ne ñoom la ñuy tooñ ñoom maanaam tooñuñ la nga di leen tooñ defuñ la nga di leen def mu ne def nga bàkkaar bu re re rëy re loolu laaye jooju yonent bi indi xadis boo xam ne daanaka dafa feelu laaya ji mu ne man aza musliman faqad azani mu ne képp koo xam ne da nga tooñab jullit mu ne yemoo ci tooñ ko moom kese waaye dafa mel ni danga maa tooñaale man Seydina Muhammad te xam nga Seydina Muhammad ku ko tooñ tooñ nga jullit ñëpp ndax yàlla saa yu wax ak moom yaa ayyuhan nabi la kay wax bu ko teree ñun ñëpp la tere bu ko santee ñun ñëpp la sant yàlla waxaat ci beneen xadis qudsi yaa ibaadi inni qad xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharraman fala tazalamu man yàlla day maa jël ak tooñ araamal ka ci sama bopp man du ma tooñ kenn wa ma rabbuka bi zalamin lil abid man yàlla duma tooñ kenn waaye ma jël tooñ it def ko ci seen diggante muy lu xaraam bu leen tooñante kon sikki sàkk amul ci ne ki kii tux dëkk ak tuxul mu ngi leen di tooñ waaye Bachir tux dëkk ak ku tuxul dafa am juróomi mbir yoo xamante ne américains yi dañ cee gëstu gis ne day lor ki nga xamante ne kii tuxul dëkk ak ku tux bi ci jëkk mooy asma bi nga xamante ne dafa wasaaroo ci xale yi asma bi ñu defee seen étude dañu gis ne dafa yokk 5 pour cent ci xale yi ñu continuer di gëstu di gëstu ba gis ne dara waralu ko lu dul baay buy tux wala yaay juy tux moo waral asma boobu ñaareel bi mooy ñi nga xamante ne guddi léeg-léeg dañuy am problème mu nokki dañuy bëgg a nokki mu jafe ñoom lool ci ñoom américains yi tànn na fukki dëkk ak ñett tànn huit mille personnes di leen gis di leen gëstu lan moo tax ñu am problème boobu bi ñu leen gëstoo di leen gëstu di leen gëstu résultat bi ñu mujj am mooy dañu am papa juy tux wala yaay juy tux moo tax fan yi rek ñu may netali benn jaam yàlla boo xam ne dafa dem di seet boppam ndax da doon nokki di am ay problème biñ ko seetee ñu ne ko na nga bàyyi cigarette mu ne moom bi mu juddoo ba léegi mësul tux ñu ne ko non yow fi mu nekk nii li ñu gis mooy yaa tux juróom-ñaari cigarette par bés mu ne déedéet man mësuma tux xanaa kon lenn sama patron bi may dawalal de buy tux ci oto bi du nangu wàccee verre yi ñu ne kon loolu mooy problème bi nga xamante ne moo tax nga am problème boobu ñetteel bi Bachir mooy ñi nga xamante ne dañ am feebaru xol feebaru xol ñi ko am ñi ci ëpp te tuxuñu seen baay mooy tux wala seen yaay wala ñu am jëkkër juy tux wala jabar juy tux 31 pour cent ci xale yoo xam ne dañuy judd rek dee wala ñu judd duñu gudd fan la koy waral mooy dañu am ay waajur yoo xamante ne yi dañuy tux mais yemuñu ci tux gi rek mais bu ñuy tux dañuy tëj bunt bi mooy danger bi ci gën a doy waar maanaam tux foo xamante ne fii saxaar si génnul am nañu ne dix 18 pour cent yi nga xamante ne ci kiy tux la waroon a dem ci yow lay dem léeg-léeg nga gis jigéen ju ëmb dem ñu ne dafa manqué ay vitamines vitamines yooyu mu manqué boo ko gëstoo ba gëstu ko jëkkër ji day tux wala mu am doom juy tux walla mag juy tux wala rakk juy tux vitamine yooyu mu manqué ñeenteel bi Bachir mooy dooful injaab léeg-léeg nga gis jigéen sëy du mën a am doom wala góor goo xam ne sëy na mënul am doom américains yi biñ ciy gëstu dañu tànn huit mille cinq cent couples ñu di leen ji di xool lan moo tax mënuñu am doom Bachir même résultat lañ am dañu am jëkkër juy tux wala jabar juy tux loolu moo tere ñu mën a am doom day yàq seen mën yu bu dee jigéen day yàq réglam juróomeel bi mooy léeg-léeg nga gis xale yi école xale yoo xam ne defe naa manque de intelligence la ko français di wax du ñu muus ni ñu war a muuse léeg-léeg tam professeur bi buy wax dina yuuxu ñetti yoon ñoom ñu dóor a dégg américains yi bi ñu ciy gëstu di ci gëstu di ci gëstu dañu gis ne 4000 xalé 4000 xalé yu uute yo xam ne dañ am problème bobu biñu ñu dañu gis ne sen kër seen papa ak seen yaay ñoy tux kon bashir li moy li nga xamantene ne dafa aju ci lorange go xamantene ne kuy tux ku nekk ci kër gi moy sabab ñi dul tux dekk ak mom ci kër gi mo xam ci kër gi lay doon wala ci école bi wala hôpital bi wala feneen wala feneen kuy tux dëkk ñu tuxul loraanga yii la ko mën a jural ci gàttal. waaw loraange yii. Mhm. rëy na. Mhm. te lii lu doy waar la. Mhm. l'islam. kon warul taxaw. di seetaan lii. comme alxuraan. suñu borom lépp loo xam ne dafa aju ñun ci ci li ñuy lor ak li baax suñu nag lii muy aayeeg li muy digle. da cee nekk lan la l'islam wax ci lii. te mag ñi nga xam jaar nañu jàngale diine tamit. lan mooy seen position ci tabac. loolu loolu laa bëggoon euh, nga jëm ci leeralal tuuti. gis nga Bachir hmm, damay wax ne monde arabe dañ yéex a jóg ci araamal cigarette dañ ci yéex a jóg ba mille 1990 arabu saoudite da danga daan gis koo xam ne cigarette am mu ngi koy fayee ci buntu jàkk ci man Maroc fekk na ma Hassan bi muy. visité jàkkaam jooju mu def Kaza. bi mu koy visité ci biir jàkk ji da doon tux parce que monde arabe dañu xaajale woon ñaar ñii ne dafa xaraam ñii ne dañ ko sib waaye ku ne xam ne ne sib araam la gën a jege que dagan waaw léegi nag monde arabe at yu mujj yi ci lañu ñu commencé nag bi ñu gisee li cigarette di rey li cigarette di rey ci la ñu commencé nag di gëstu ay aaya yoo xam ne dafa araamal cigarette maanaam xam nga dafa am lu ñuy wax qiyaas léeg-léeg am loo xam ne alxuraan du ko tudd sunna du ko tudd léegi gis nañ ko alxuraan waxu ci sunna waxu ci léegi nan la ñuy def dañuy natt te qiyaas li ci ëpp solo mooy illa la maanaam bi ñu nekkee Maroc di jàng dafa amul benn siro bu ñuy wax nabis alxuraan waxu ci sunna waxu ci te siro bi day mandilaate léegi nan la ñuy def pour xam ne xaraam na. dañuy dellu ci alxuraan seet lan moo araam lan la alxuraan araamal luy màndilaate ñu ne sàngara sàngara day màndilaate sirop bii alxuraan tudd day màndilaate ñu ne lan mooy seen illa lan moo leen liyee ñoom ñaar ñu ne màndi ñu ne bii alxuraan tuddul day daal di araam ci saa si parce que bi nekk ci alxuraan di màndilaate dafa xaraam kon boroom xam-xam yi ci at yu mujj yi arabu di commencé eh, weeru koor bu ñu la jàppee ngay étranger sax di tux dañ lay yóbbu sa dëkk ñu commencé interdit cigarette